alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf alanbiyaa wal mursalin sayidina mawlana muhammadin almakin wa ala alihi wa sahbihi wa ridwani wa tamkin assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu sëriñ ñu ngi lay delloo nuyoo bu baax di la ziyaara te di leen dokkeel ci weeru tedd yi nga xam ne moom la ñu nekk ak bis bu tedd yi nga xam ne ci la ñuy jub si di ñaan suñu borom mu nangul ñu suñuy jaamu yàlla di jéggal ñu suñuy rëcc rëcc te yàggal suñu kilifa bu baax bi Cheikh Mouhamadou Mountakha ak mboolem njaboot suñu Touba ñu ñu ko xamee incha allahu taala sëñ bi joxe ni ndigal ñu war a taxawal julli korite bi su fekkee weeru feeñ ci mu am nag tuuti lu spécial ndax xam nga ne contexte bi ma ko waral li ñu baaxoo woon mooy bu julli korite jotee lañu daan jullee ji ca penku jumaa ji am na jàkka ji ko nekk joo xam ne mu ngi waajaloon julli ay fa la ñu daan jullee ay ren nag ni ko ñëpp xamee ak jamono toll ak lii am léegi barab boobu dana xat ci ni nga xam ne noonu la ñuy jullee ci euh, fii jamono toll tax na sëriñ bi wax ne nañu ko àndal ngir jumaa ji ngir gën a sàmmonte ak matukaay yi nga xam ni warees na ko sàmmonteel bu jamono tolloo fii mu toll ñuy fàttale nag ne kon julli yi insha allahu taala mi ngi amee ci biir jumaa ji rek li ko andi mooy loolu rek wàccaay wi ñu koy waajal nag mooy wi ñuy waajal julli ajjuma yi rek ndigal yi sëriñ bi joxe woon ci julli ajjuma yi moom la joxe ci julli xay yi ne nañ ko doxale noonu wuutewul kon kuy ñëw na bàyyi xel ci cet bi nga xam ne laaj na ko kuy ñëw na dakk masque bu agsee ci bunt bi ne raxasu nañu dugg ndànk ndànk te bañ a booxante bu ñu duggee ci biir nañu soreele jataay yi ni nga xam ne noonu la ñu koy defee ci ajjuma yi bu ñu jullee ba noppi ñu toog di def toog kenn ñu bañ a jóg ñu déglu xutba bi ba sëriñ bi waxtaan ba noppi ñu door jóg te bu ñu jógee itam bu ñuy génn ñu génne benn benn te bañ a buux buuxlooy ci bunt kon daal yooyu mooy yi nga xam ne moom lañu ñu ciy dënk bu ñëw na nga indi masque wala kaala boo agsee na nga baa nga laal euh, alkosel euh, soo duggee ci biir itam nañu toog soreele sàppe te bu ñu jullee ba noppi ñu toog déglu xutba bi déglu waxtaan sëriñ bi loolu jóg te bu ñuy génn itam ñu génn ko baj baj loo ci bunt yi ndigal la mu joxe woon ci ku ñëw fekk biir jumaa ji fees nga laa birante ak ñi nga xam ne ñoo lay yëgal ne biir jumaa ji fees na ngir nga mën a dellu xool fu yaatu foo mën a jullee nga jullee loolu daal mooy ndigal yi nga xam ne moom la sëriñ bi jox joxe ñaan nag ñëpp jàppalante ci ak ñoom te xam ne sëriñ bi moom sunu mujj rek la ñu bëggal kon nag li ñu bëggal nañ ko bëggal sunu